fay fayee pour consultation tënn la si biir mi ngi rey nit ñi inondation bi mi ngi rey nit ñi gouvernement gouvernement bi di ñu rey mu am suñu ay mbokk sénégalais yoo xam le vrai problème au Sénégal c'est que ceux qui se revendiquent musulmans manquent à d'être de bons musulmans ceux qui se revendiquent chrétiens manque d'être de bons chrétiens. Merci. Ceux qui se revendiquent tariqa dîner manquent d'être de bons experts. Oui, c'est la réalité. Exactement. Que les gens se départissent de leur manteau. prestige bi ñuy dund toog ci kaw jàpp ne ñun ñooy ay dof ñun dofuñu maa ngi gërëm askanu Sénégal di gërëm ndaw gërëm ndaw parce que ndaw day am pas-pas ndaw du wor yàlla nañu yàlla may ba du ñu wor ñi ñuy jàmmaarloon nañu xam ne bu gars yi di naan attaaye bu gars yi ne ñëpp a yem ñun du ñu bàyyi ci xeex bi parce que li ñuy tax a jug mooy la bonne gouvernance mooy la transparence un message très fort que les sénégalais cessent de mépriser la sous-région foog ne ñoom ñoo gën ñàkk ñi foog ne ñoom ñoo gën yeneen africain yi dépassé nañ ñu dans le cadre de l'engagement sénégalais dañuy toog seen kër bàyyi leen naan attaay yi bàyyi leen ñaan ñoom ñëpp a yem ngeen assumer seen histoire